gis jigéen ñi nga xamante ne dañoo am feebar cancer dañ leen di référé ci yeneen bërëb fajukaay ci dakaar mu nekk urgence boo xamante ne dafa jot ñu dooleel structure santé yi ndax amuñu li nga xamante ne moo di chimio mammographie ak yeneen. mooy bon chimiothérapie amaguñu ko radiothérapie boo déggee ne. pour l'instant euh, au Sénégal au Sénégal mooy euh, radiothérapie buy faj cancer du sein yi ñeent ñun fi amagum. ñeent doléance yemu ca ñoom nag bëgg nañu ñu am l'hôpital plaidoyer bi nag docteur Abdoulaye Senghor moo ko porte. parce que boo xoolee lu ñëwee Parcelles Assainies commune bi on est à plus de trois cent cinquante mille âmes personnes. te foo xam ne dañu ne rek deux cent mille habitants rek war naa am hôpital foofu ñi ñu nekk niveau centre de santé ba léegi xam nga rek war nañu relever plateau technique bi foofu pour permettre population bi au lieu ngeen di génn di dem di faju si dans les autres structures ngeen yem si commune bi am. solo si ndaje bi nekkoon sensibilisation ak dépistage du cancer ak yeneen xeetu feebar. loole lu ëpp téeméer ci ay nit jot nañ leen dépister.